dana xaaraat juróom-ñetti at ca kanam ngir ñu mun a édifier ci situation bu mu nekk bu ñu sukkandikoo ci porte parole famille bi jamono ji famille bi mu ngi ci njaxare bu métti. waa parce que bi ñu déggee ni kat carrément mbay nga war na fa amaat juróom-ñetti at suñu xel nag dafa gën a dafa gën a dafa gën a doy waar waaw ñun ñëpp dañoo gën a sëngéem vraiment jaaxle nañu sëngéem nañu. waaye. famille bi ba tey mu ngi am yaakaar. waaw am nañu am naa man am naa yaakaar am naa tuuti yaakaar. bi nekk Sénégal doo xam nu demee waaye soo génnee bi ma génnee ma dem ba Arabie Saoudite euh, foofu xam naa nag carrément naka la demee waaw. famille bi li ñu bëgg jamono ji mooy ab audience ak président Macky Sall ba noppi mu daal di dugal yoo xam ci mbir mi. waaw parce que bi ma jógee Arabie Saoudite ñëw bëggoon naa ko gis waxtaan ak moom ci point yu bëri yoo xamante ni sax bëgguma ko wax ci rajo wala tele waaw mais su ma gisanteeg moom dinaa ci waxtaan ak moom bu baax a baax a baax a baax mu gën ñoo dooleel gën ñoo jàppale. ci fàttali Mbayang Diop ñu ngi koy téye ca Arabie Saoudite depuis juin 2016 ndax dañ ko tuuma ne dafa rey patron loolu nag tax ñu daal di ko condamné à mort.